waaw man nag xam nga maa ngi doog a yegg si nii ndeykaay xam nga um, bi bi affaire bi di am ndey kumba a fi fekk moom war a def émission euh, célébré xam naa dama koy bàyyi rek ngeen laaj ko parce que man maa ngi doog a yegg nii voilà. ngi leen di bu baax di la fay <laughs> euh, yëf ni mu dalee suñu kaw ñëpp ko gisandoo euh, bi ñu defee journal dix-huit heures quarante-cinq ba pare ci laa jóg comme niñ koy amalee chaque jour.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 soññee la te lii tamit bu amuloon man leneen mën na am Walfadjri moom depuis Sidy Lamine dañoo tàmm saa yu dara amee askan wi yëpp ñëw moo xam lu neex moo xam lu naqari fii ñu taxaw fi lañ taxawoon keroog bi ñuy gazé am ñu fi yàqule am ñu toj seen i oto am ñoo xam ne ci lañ jóge ba léegi sax am ay mitit kon lañ ci jàngee rek mooy euh, delloo nañ battu ca ndaa la en tout tamit kenn du yéen parce que lu fi siiw yi tamit bi la bi fi xewee balaa dara xew ñëpp ak si ngeen en tout sant yàlla rek li moom ak cant la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 voilà voilà voilà pour ñu pour ñu voilà pour ñu ñu xam ok jaajëf jaajëf ok gën a taxawaat gën a aussi parce que Walfadjri tey nekk na benn télé bi nga xam ne dootul télé Massamba wala télé Madem mooy télé askan bi la tey euh, tey euh, waaw la voix des sans voix comme ñu koy waxee c'est la voix des mooy tey képp ku amul baat moom mooy faj Walfadjri taxaw na am lu mu la mës a waxal kon lii ngalawaay moom mooy ñi ci war a jot buñ ci jotee nañ ci def lépp li nga xam moom moo moo gën a gaaw parce que tey euh, am na ñi nga xam ne nii tey ci Walfadjri la ñu yaakaar pour mën a am lu ñu mën a suturloo lu ñu mën a dimbalee seen njaboot donc tey képp ku ci war a mën a jot rek na ci jot lu ñu mën a def ñu def ko bu gaaw a gaaw parce que lii métti na trop yéen tamit ñu ngi rafet rafetlu seen taxawaay bu baax a baax parce que sans yéen mooy dara du leer dara du génn jërë ngeen muy am fan la fekk. am nag euh, man maa ngi nekkoon ci ci samay euh, parcours mais immédiatement bi ma ko déggee rek immédiatement lépp li ma doon def dama ko dama ko bàyyi dañ ma njëkk sax woo benn sama benn xarit bi nga xam parce que tey maa ngi fi woon dans les coups de euh, quatorze heures je pense maa ngi avant quatorze heures maa ngi mais bi ma génnee ki ma fi àndaloon Moustapha Ndiaye moom moo ne ma mais booy xool boo fajte mi ngi tàkk mais boo fajee nan la mën a tàkk te ñu jóge fa depuis sànq donc jikko nag lépp lu ñu jàppoon ñu bàyyi ko ñëw bokk naqar bi Sénégalais yëpp voilà. merci jërëjëf kontaan naa bu baax merci. di mbir mi defe naa ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo bokk si di fi teew aussi ñu leen di gërëm. mais xam nga instant bi moom damay ngay tiit ba doo xam sax looy wax donc yàlla baax na ba mu amul perte humaine en vie humaine euh, dégâts matériels la mais li ma gis dégâts yi buur la wax dëgg yàlla mais nag yàlla baax na en naa ñuy définir originaux euh, incendie bi peut être yàlla baax na dinañu mais daal métti na ko fuñ métti yem ngeen ko xalaat rek métti na métti na trop. bi la la fekk ak ci lan man dem dañ ma ko wax ma jël taxi di ñëw moom boo tiitee mënoo wax dañ ma ko wax rek may daw si di ñëw mais boo yéegee ci kaw da ngay xam ni lakk bi métti na lakk bi métti na vraiment mais bon ñu xaar rek xool lan la ñu enquête bi di génneel. Euh, origine bi lan la loolu rek lañu ci mën a wax sinon di santaat yàlla bu baax a baax di ci kenn ñàkkul bakkanam parce que ñëpp xam nañ ne télé rajo day daw 24 heures sur 24 donc dañuy santaat yàlla bu baax a baax euh, gars yi amuñu stress mais nag man da ngay tiit da ngay tiit da ngay day metti parce que yow ci kër gi nga nekk te xam nga ni ñuy dundee dafa metti trop. metti na mais sant yàlla yàlla baax na. waaw. waa ñun ci njabootam lañ bokk ñun ci njabootam lañu bokk et puis c'est l'occasion de dire que ni lii la ñu soxla ci sunu ay autorités lii la ñu soxla ci sunu ay président ay ministre que sa population bu la soxlaa à la minute qui suit nga nga nga loolu loolu defe naa ni nga embarqué ñëw. defe naa ni loolu moo gën donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm wax ñu du mën a bari merci beaucoup merci beaucoup